jërë ngeen jëf mbokki internet sport live 221 revue de presse sport nag eh, ñu ñëw ci ak yéen laata loolu la ñuy wax ne rek képp koo xam ne gan nga ci page bi te abonné go ñu ngi lay ñaan nga abonné activé sa cloche su ko defee lu nu dugal ci vidéo nga bokk ci ñu koy njëkk jot revue de presse sport dalee ko ak eh, ëttu yéenekaay bi di stade. stade le quotidien du sport ñëw nag ci nga xam ne moo di blessure à répétition euh, nee na nag kon moom doomu Sénégal bi la nga xam ne moo di sabali une carrière en danger ndax ay blessures yoo xamante ni bari na lool cinquante cinq matchs ratés depuis son arrivée à Betis forfait contre Soudan du Sud et Togo une participation à la CAN menacée kon nag jàpp leen ne moom Sabali euh, ba mu nekkee fële ci Real Betis Espagne ak léegi raté na lu toll ci cinquante cinq match yoo xam ne ay blessure moo ko yóbbee kon nag diggante Sénégal ak Soudan du Sud ak ki nga xam ne mooy Togo yoo xam ne moom it du ci bokk ndig blessure encore waaye sax euh, bokkam ca bi nga xam ne moom la ñu dëgmal nekk na loo xam ne jeexi jaaxa mën na ci am gannaaw sax bu mu raté kan bi nga xam ne moom la ñu génn ndek ay blessure euh, passage compliqué à Leicester Nampalys Mendy se confie moom Nampalys Ismaïla nag kon yëkkati ay kàddu di wax euh, ci jaaram euh, foofee nga xamante ni moo di ak jafe-jafe yamu fa am c AEK Athens euh, Marseille à vingt heures nag euh, ci li nga xamante ni moo jëm ci euh, Europa League Elimane Ndiaye et Izo pour se rapprocher des huitièmes basket successeur de Moustapha Gaye nag l'Espagnol Alberto Atuña aux commande des Lions kon nag gannaaw Moustapha moom doomu Espagne bi di Alberto Atuña wala Antuña moo war a nekk nag ñi nga xam ne mooy kilifaay soxnay Sénégal yi ci wàllum basket bi ci final du champion su national Ngor daal di dominer Mbao nag euh, ba noppi sax am benn euh, succès euh, wala nag wuutu ki nga xamante ni moo di Yoff C1 Vinicius Bry Ken inarrêtable Martinez décisif Real Bayern et Inter au rendez de des de finale kon nag moom Real de Madrid rek gannaaw ndam loo xam ne am na ko démb ci digganteem ak Sporting Braga 3 buts à 0 bii bu ki nga xam ne moo di Brahim Diaz euh, naka noonu doomu Brésil bi di Vinicius wala doomu Brésil yi di Vinicius ak ki nga xamante ni moo di Rodrigo kon moom Real dafa direct ànd ak ki nga xam ne moo di Bayern ak kile di Inter de Milan ñoom daal nañuy qualifié déjà ci nga xam ne moo di huitième de finale ci Ligue des Champions boobee Tribune Sport Tribune Sport ba tey ci xatam bu njëkk ñu mën caa gis rek ki nga xam ne moo di doomu Sénégal bi di Youssouf Sabaly nag ak ay blessuram laata Soudan du Sud ak Togo nee na faut-il s'inquiéter pour la CAN 2023 di laaj boo xam ne journal bi na ko jëmee ci ki nga xam ne moo di Youssouf Sabaly ak blessuram yu nu mel équipe nationale Sénégal Aliou Cissé annonce sa liste kon nag Aliou moom ni ki ëllëg incha allah la war a annoncé listam ci match yu ñu dëgmal Euh, la fédération sénégalaise de basketball nag nee na euh, Carlos Alberto Antuña entraîneur de l'Ouganda nommé entraîneur de Lyon euh, moom mi ne nag kon moo war a nekk entraîneur ñi nga xamante ni ex entraîneur de l'Ouganda ngeen baal ma moom mu fi nekkoon ay jamono entraîneur bu Ouganda espagnol boobee nag jamono jëlee moo war a nekk entraîneur suñu soxna yooyu ci basket record yeneen kaay la ñu wutali record yeneen kaay ñëw nag wax ci lamb sax nee na Sa Thiès défi Modou Lo je Sa Thiès nag kon nee na bëgg-bëgg mooy dale ki ngi daje ki nga xam ne moo di Modou Lo laata muy daal di bàyyi lamb moom Modou Lo basket sélection nationale féminine Alberto Carlos Antuña euh, le euh, ki nga xam ne nag Lille prend les manettes kon moom moo daal di jël euh, li nga xam ne moo di mbir ma wuutu kile di Moustapha Europa League AEK Marseille 20h euh, lay doon Izo ak Elimane maanaam Ismaïla Sarr ak Elimane Ndiaye ñaari doomu Sénégal ya nekk foofee ca Marseille nag kon euh, daal di rek war a confirmer seen euh, confirmer wu foofu nga xam ne moo di ca Grèce ngir mën a ubbi buntuk huitième de finale bi ci soko championnat championnat final Ngor daal di dominer mbaaw ba noppi succédé li nga xam ne moo di Yoff Ligue des champions quatrième journée Real Bayern ak Inter de Milan ñoom nekk nañu li moo di ca huitième de finale di xaar ana ñan ñoo leen fa war a fekk Rewmi Sport la ñuy dem Rewmi Sport nag moom it ñëw ba tey ci wàllu basket ak technicien espagnol bi nga xam ne nag jamono jëli moo war a nekk ci boppu euh, boppu suñuy gaynde yu jigéen. ngir nag war leen a si gannaaw ki nga xam ne moo di Moustapha Gaye éliminatoire mondial 2026 Aliou Cissé kon war naa dévoiler listam niki ëllëg ci ajuma bu ci yàlla àndee jërë ngeen jëf kon mbokk yi lii mu doon xibaar yi ci euh, vidéo bi lay jëm ci wàllu tàggat yaram euh, yeneen xibaar rek ci yeneen vidéo lay doon jërë ngeen jëf beneen yoon ak yeneen xibaar bu ci yàllaande laata loole wa leen di like di abonné ci seen chaîne ku déggan ci page bi rek te abonné ko ñu ngi lay ñaan nga abonné ak sa kolos su ko defee lu nu dugal ci